buñ ne loolu kan mooy sa idol ci làmb am nga idole. Hmm, am naa idole sama idole. Hmm. ñetti idole la am si ñi may roy. ñetti ku ci nekk danga may wax lan moo la gën a neex ci moom ba tax nga ko ciy roy. Hmm, première ki sama papa laay roy. lu tax may roy si moom. dafa daj lu metti pour nekk sampion fii Sénégal. te ba pare ma roy si moom si loo xamante ni si bàkk la chaque instant bu ma duggee làmb ñu si bare bàkk bi la ñuy séentu si man maa ngi koy roy si moom bu sa des Balla Gaye 2 mooy sama idole. Balla Gaye moom. bi moo gën a neex si moom bëre bi muy bëre. moo gën a neex si moom. ndoxtu bëreem ndoxtu bëreem ndax bu duggee si làmb rek da ngay xam ni kii dafa nar a bëre. Hmm. troisième bi Modou Lo lu la neex tax mu doo neex ma moom tamit ñeme footing bu mu ñeme footing moo tax mu neex ma saa bu simmeekoo kenn du ni cam loolu laay roy si ñoom. te saa su ne boo xëyee yaa ngi koy def. saa bu nekk bu ma xëyee bu ma xëyee maay entre ji. chaque instant nii période bi tëj na mais dafa am samay mafia boo xam ne damay ànd ak ñoom après timis di footing li metti bu ma paree contact ak ñoom. pare ñëw sangu saa bu ma tëddee sama lal ñii xam nañ lu may wax foo ma fekk maa ngi nguñam nguñami di bàkku di jàng bàkk di répété ay bàkk ngir lu nekk suñu kanam ndax dañu fas yéene delloo si lu fi mag ñi bàyyi woon loolu loo xamante ni euh, lu am solo la ginnaaw loolu dañuy njëkkee fi njëkk fi rek muy bàkk parce que bàkk dañ ko gëj gis ci làmb Bàkk day bëgg a raaf ci làmb bari na xale yu bari yoo xamante ne ay champion lañ ci làmb boo leen joxoon micro ne leen bàkkal mënoo ñëw bàkk tey nag dinaa la làmb xool nga bàkkal ma ma dégg ay ca waaw laa ni bisimilaa ma tàggu yàlla tàggu yenente yàlla muhammad ma tàggu jibril ali salaamu laa tàggu faatamata bintu yaa rasulillaay ni yàlla moo di buur di buuri buur yi di buuri malaaka yi ni saxa saxa jey saxa janjang yaa jey ji babanding wuli wuri banta jaare feewla wuri banta jaare wuri wuri mukk ma dëkkaale ak yàlla ku xawi yàlla sooy ni salaxu mexe malaxu mexe cururu mexe tàmburu mexe jaasi kiti king gobar limi limi fett abada daa iman xànjar dama koy wiñaar sàllaaw ndax am neex na yàlla nañ pose foofu ba si kanam ma àggale lu <laughs> wallaay ah waay gars a yéex a tàcc waay gars tàcc leen loolu non vraiment macha allah